gis naa fa mbàkke kajoor xéewal yu jëm abadan yoo xam ni dootu fa jóg baara samay taalibe rek nee na saabu bis bi ñëwee day yokk day yokk te doomi kër gi. doomi booy booy wuti dara dangay dem fa mu am te borom yéene la ko. nee na jot ca du jafe. nee na di wut sëñ Touba am na ko. sëñ Baara am na ko. te yéene nanu ko. ko te def nañ lu ko jar. ndax xol bi ak passé bi ak yéene ji. dara desi te nee na doomu aadama loolu dong la rawatina ab taalibe kon nag waxtu wu nekk ñi ngi ñi ngi bi ak njaboot ak bokk yi ak bokk yi nee na addiyet nangul na leen fas yéene koo def ci liggéeyu sëriñ bi nan ko daan defee rek nee na ba muy Cheikh Sidil Muxtaar bu masa lum masa lum masa digle lum liggéey ak luñ ko masa ak luñ ko masa ndil ka fi nekk sëñ jox bi mu doonee sëriñ Baara ki nekk sëriñ Touba la koy jox bi mu liggéeyal Serigne Touba lépp lu mu am def na ko ci liggéeyu Serigne Touba. te loolee ñoo ko ñoo ko bokkoon ak moom ba sunu borom dogal li ko soob. li mu liggéey lu mu nee na li mu ci ñun doomu aadama ñu di ko yéem li mu ci yéene mu ëpp doole loolu fop nee na kon nee na bu ñu doxee ndigal. di di ko. di ko teewee. di ko teewee. ba saa borom la ko sopp. ñu wéyal ndigal la. mel na ni kon. yéenam joojee. ñoo ngi ciy dox. waxtu wu nekk. nit boo ko dee liggéeyal. nee na doomu boo ko dee liggéey ca bëgg caa noppalu. da ngay xam la mu nga def boo ko defee noppal ko noppalu sëriñ bi lu mu masa bëgg la ci ëpp mbooloo nekk benn boole xol yi lu waay yéene sa bopp nga yéene ko sa morom daana ko wax daana ko jëfe bi mu nekkee sëriñ Tuubaa tamit ku ne xam xame na ko ku ne xam na ne ñor na ko kon ñun ñi nekk ci yoon wi. ci biir wanagam wii. di nekkal loola waxtu wu nekk. kon suñuy mbir naa jàpp. nee na mbir mën naa jàpp ni. nee bis bu lekk ba mu fi nekkee ba mu fi nekkee. ba ñu daan xool. cam fees dell ak yërmande yéene woon ñëpp jàmm nee na bët ba booyee ba léegi sunu borom dafay dogal ni bis gisul sunu borom nitug sunu borom bu làqoo sunu borom dafay koy defal ñeenti bët asamaan du ko téye suuf du ko téye bët yooyee danaan ni ko ni jàkk ci ñun gis naa fa mbàkke ko joor xéewal yu jëm abadan yoo xam ni dootu fa jóg lépp ak sëriñ baara